Dame moon Fimela hey Dame Sène moo ngi boo ngi bulu ñuul li moon Fimela ngi boo ngi bulu vert a ɓa kam maake telam rigoori biike sar e loolo kam butwa cey waay njëm aca arbitre ba sifflé waat na combat Ndiack Sène diggante Ndiack Sène Boy Bokal xaw ma Boy Bokal xaw ma moo ngi boo ngi bulu xonq li Ndiack daay day la laa doole taxul jàmm daanoogul lu arbitre wax Ndiack Sène daan na Boy Bokal hee Jackson mbëru Grand Pape Mamar baa ngi noonu aca demi final sok oh Jackson Jackson boro sel bandi Jackson moo ngi bonge Ndiak Sène moo ngeen boo ngeen bulu ñuul li Brosse ngeen boo ngeen bulu xonk li fii ci campement Ngeko Ndiak Sène Brosse Selle Bandi ya le yo Cheikh Tidiane waag Feleer Diour yo Sangomar xa ñaan we Mofer e Fouta Ndiota maaga Ndogonum te mbir maak ne gen na Niodior le grand champion Cheikh Tidiane ñaa ñu ngi koy bëggee Brosse Bandi teen bu buur boros mbaru Moussa Thiaré bi waaye mbaru Yvonne national bi bom boros njaag seen moo mbaru maam Demba Samon mbaru grand Pape Mamar ba tax na damay bëggee suma toos suma mak suma xarit Gara Ousmane Mané bëggee nako? Gara grand Omar Mané kontaane naa ko grand Mamadou Ndong borom Sing Boyar maa ngi koy bëggee de cey bii demi final demi-finale bu alese ñaari ndaanaan lañ ëppante wuñ ci doole sanam ñoo wala artiste Féléré la ilaha illallah boros daan na Jackson boros daan na Jackson Jackson boros du moins Jackson daan boros maa ngay juum de aca finaalo yàlla wara ba dem na kan waxum ak dem na ndey taali ma ne lu waay doon jaay tey mu lamb xuutar xuutar be xaabar xaabar bi ku ci yàqoon waxu jàmbur dang ko defar final bu alese diggante Ndiack Sène ak ki nga xam ne moom mooy coonu bu mbuur Ndiack Sène moo ñëwoon gannaaw ngeen boo lu ñuul jaa coonu moom lañ jàkkaarlool fii lay xewee ndeysaan ci campement Ngeko Soum Production wala Ablaye moo fi woote woon. tegal mbër yi poids léger cinq cent mille poids lourd un million final poids léger baa ngi noonu diggante Ndiack Sène boo ko foofu da daal di mbot loolu fooram la moo tax mu lay tijji loxo waaye Ndiack danga koy xaar fii mu ñëw fële Batahna da na bege kep kuy bege Zilo TV rawatina wasa 100 pour cent bi bege nalen leen jël bëggee bi diko tek ci loxo Asso Ndong le président nan ko doxalal fo jaar yoon la suma gara Mamadou Ndong borom Sing Boyar bege na ko ndeysan gara fal le douane ma ngi koy borom simal bege na ko Aliou Bob borom Félir borom Espagne kontaanee naa ko de di rek naa bëggee naa ko waa ji bëggee grand ba dara Bob maa ngi koy kontaanee Séri Mata bàyyi duudo ndeysaan maam jaara bu jon suma waay suma xarit jigéenu Zilo TV bëggee naa ko ndey njoor suma bébé la maa ngi ey caxabal caxabal xatar bi day am wala ey songale doole doxul jàmm njaag seen laay la xay la la ee setul njaag seen waaye lii lu mu jay <laughs> bi final jay bi final da lay plaqué da lay jaxabal contour Songole la ilaha illallah Ndiack Sène na ko Ndiack Sène jël na bu wàllu